koor mooy ñeenteelu ponki lislaam yonent yàlla bi sallallahu alayhi mu ne tabax nañu lislaam ci juróom mu daldi ciy tudd koor te koor dafay war ci bépp jullit bu nekk majeur ànd ak xelam mën ko te tukkiwut weeru koor dafay dugg ci bis bi ñuy gis weer bi suñu ay bët wala bokk ci yenn xeetu jumtukaay wala ñu motal weeru baraxlu ci fanweeru fan loolu bu nekkee gisuñu weer bi waaye kenn du sukkandiku ci ay calcul dafay war tamit fanaanoo yéene koor dana doy benn yéene ci njëlbeenu weer bi fileeg ngant buy dog yéene boobu amut bu loolu amee ñu daldi beesalaat yéene bi faratay koor mooy téye sa bopp ci lépp luy dog koor laka dalee fenku fajar bu dëggu ba naaj bi daldi so képp ku lekk naan njott ni guddi mu ngi fi ba léegi fajar fenkagul wala mu lekk naan jàpp ni naaj bi soona topp mu daldi gis dafa juum kooku kooram wér na yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla kat teggil na xeet bi njuumte fàtte wala boog ci liñ leen forcé